ñoo ngi ñoo ngi leen di sant bu baax di leen euh, gërëm euh, di wax ne tey conseil départemental bi daje na pour voter budget budget bi nag li ñu ci jàngate mooy acte trois de la décentralisation li mu tëral loolu mënul jëmale kanam Sénégal mënul jëmale kanam collectivité locale bi ndax bu ñu jëlee budget bi nga xam ni voté nañ ko léegi conseil départemental li muy jot lépp ci alal jumu mu liggéeyee ci état bi lay jóge amul fiscalité boppam donc ressource état bi lay liggéey état bi ci fonctionnement cent quarante millions de francs CFA la ñuy jox cent quarante millions yëpp mu ngi yem ci salaire li nga xam ni lii sax loi bi wax na ne conseil départemental bi war na ko def c'est-à-dire di daje ñeenti yoon par at loolu ndaje mu conseil départemental daje rek cinq millions lay jàll donc loolu vingt millions lay doon loi bi wax ni session budgétaire war nañu daje lu néew néew fukki fan ndaje moomu trente millions lay jar donc ay bor rek lay doon waxuma nag yeneen fonctionnement li nga xam ni lii moom lañu ñuy jox pour investissement maanaam li jëm ci askan bi toppatoo loppitaan yi toppatoo lycée yi toppatoo environnement bi cinquante neuf millions de francs CFA la ci at mi maanaam bu ñu ko doon séddale Cees waa bu nekk quatre vingt francs ngay am ci at mi pour toppatoo loolu yépp ma lim ñu dolli ci ne compétence yi nga xam ni wax nañu ne ay mission la yu conseil département bi war a doxal bis bu ne état bi di ko doxalal boppam te du ci yëgoo sax ak conseil départemental àll yi nga xam ni dañ ne conseil départemental moo ko war a yore bis bu ne ñu jël décret daal di ne dindi nañu àll bi jox nit te conseil départemental du yëg bis bu ne ndox mii ñu ne mu ngi nekk ci biir suuf conseil départemental la ko war a yor bis bu ne ñu def ay décret jël ci ay ndox di ko pomper di ci def loo xam ni li conseil départemental du ko yëg loolu moo tax ñu ne acte trois de la décentralisation lu ñu war a gaaw a réformer la bu ñu bëggee développement am ci dëkk yi am na benn maire commune bu ma wax bërki démb mu ne ñoom teertu nañu njiitu réew mi ñaari yoon teertu bu njëkk bi benn fan 27 millions teertu ñaareel bi 59 millions loolu ñu def ci benn teertu benn fan bu fa njiitu réew mi ñëw moo ëpp li mu am ci fonds de dotation pour at pour war cee régler soxla askan wi mu ne loolu moo jara seet moo jara jóg pour seet lu ko jubbanti ngeen laaj ma lu ma xam ci doxinu réew mi ak li ma ci faral di wax ma wax ne sénégalais yu bari yi ci ëpp nangu nañu fi situation bi toll ndax ñi yore réew mi dañ leen a waxoon yokkute lañ leen di indil émergence PSE mais li ñu leen jural mooy ndóol boo xam ni àddina bi yëpp a ko seede FMI nee na ñu ngi bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina PNUD mi nga xam ni moom la gouvernement bi dénk liggéeyam bi mu bëgg liggéey ci collectivité locale yi PUDC wax na ne ci indice de développement humain Sénégal jóge na ci cent dix huitième place dem ba ci cent soixante dix dixième ak lu topp maanaam fukki réew ak juróom-ñett yi gën a doyadal seen askan gën leen a ndóolal ci la Sénégal bopp donc loolu du waxi Idrissa Seck constal ñoom ñi fi nekk yaakaar lañu ñu diggee woon mais jaaxle la ñu indi koo wax mu jaaxle jaaxle nañu d'abord est-ce que mën ngeen a xalaat Sénégal démocratie fi mu toll ak àddina bi ni ñu ñu nawee ñu toog ba nëga ni xamuñu kañ la ñuy voté élection présidentielle maanaam calendrier républicain dafa flou kenn mënu la cee wax lenn te loolu dara indiwu ko lu dul président de la république avant ñu koy fal ak bi ñu ko falee ba pare mu wër bitim réew confirmer ne dina jële mandat bi ci sept indi ko cinq moom moo ko waxal boppam mais indeegu ci benn leeral buy mën a may sénégalais yi ñu am droit ci xam kañ lañuy ñuy jàpp ngeen ni rafet na ci deru Sénégal rafet na ci démocratie Sénégal ñuy jàpp ay journaliste di tëj jàpp ay opposant di tëj maanaam daal Macky ñaari mbubb la yor benn bi maron beige la bu ko solee muy chefu partie APR mu dugg ci langu politique bi ku ko wax dara mu dugg ci néeg bi sol mbubu vert jaune rouge ne la au président jaxase boobu rafet na ci deru senegal rafetul ci deru senegal jàpp nit ñi di tëj loolu defoon nañ ni xewwi na weesu na senegal dépassé na loolu te loolu yëpp li ko indi mooy ñàkk def réforme yi nga xam ni diggé woon nañu ko ci wàllu décentralisation wax nañu ko anam boo jël noonu la tëdde donc ñu jàpp ne wax loolu du caageenu bëgg a critiquer rek déedéet ñun loolu ñoruñu puisque FMI kenn du ne dañoo soxor moo tax ñu ne Sénégal vingt cinq pays le plus pauvres du monde PNUD kenn du leen wax loolu ñun ñi nga xam ni dañoo nekk ci réew mi di politique di défendre intérêt askan wi bu ñu waxee ñu ne ñu da ngeen di critiquer ñun li ñu gënal mooy président de la république xam ne situation bi doxul mu dellu ginnaaw jël weneen yoon ba nuppi yokk a waaxu pour mën a saafara jafe-jafe askan wi tey prix pétrole bi nga xam ni daanaka lu ne boo ca demee énergie am na ca wàll daanu na ba nërmeelu bu baax a baax a baax mu ngi jóge ci cent dollars wàcc na ba ci moins de quarante dollars trente huit dollars kan moo ko yëg ci jafe-jafe yi ñuy dund wàcc boobu waroon naa feeñ ci facture électricité waroon naa feeñ ci boulangerie yi waroon naa feeñ ci transport bi waroon naa feeñ fépp feeñ bu wér que dafa wàcc carrément divisé par plus de deux waaw loolu day la ñu fi la ñu fi wax. non opposition bi li ma la wax moo ci nekk dama ne la majorité peuple sénégalais bi mooy opposition bi. yéen da ngeen a jàpp ni da a da ngeen forcément parce que nous sommes dans le peuple nous sommes. Euh, dans la défense des intérêts du peuple. Donc nous incarnons l'opposition. Je pense que personne ne doute aujourd'hui que, en tout cas, Idrissa Seck est dans l'opposition. Donc ñoo ngi ci opposition bi bu baax a baax a baax mais du caageenu dañuy def opposition euh, sànni xeer toj bus lakk fii et bu dee loolu mooy opposition bi man du sama cër kenn du ma ci fekk puisque bëgguma jël réew mi war ko doxal war ko yëkkati di ko fekk mu nekk dóom dama bëgg rek ñu dégg li may wax que ñu xam ne ah bi lii jotee de Idrissa Seck taxaw na bàyyi na fa privilège yaag yépp taxaw ne lii jëmul kër booba FMI waxagul booba PNUD waxagul man maa wax loolu laa jàpp ne mooy sama cër li ma ci jublu itam mooy defar senegal mooy Sénégal progresser puisque loolu mooy suñu sag loolu mooy suñu ndam puisque yoon bi Sénégal war a dox dafa gudd li ñu war a saafara bari bari waay boo xam ni ku ci toog ab diir rek dañ la war a yéene nga def ca njàmbar gu mat sëkk am ca ndam parce que ndam loolu nga ciy am boo fay jóge da nga fa bàyyi ci liggéey lu ëpp fuuf la nga def donc kenn amul yéene nit di yore réew mi di fa kastalu wala muy bañ a am ndam wala muy bañ a doxal donc boo gisee ñu ñu ñuy soññaate di wax ne nañu jaar bii yoon moo baax puisque bii yoon jëmul kër loolu moo ko waral jërë jërëjëf merci